benn gox la bu nekk ci Ila Mourfine ca département bu Podor moo dalal ren nag festikat festikat moo dee kat téeméeri at yi nga xam ne la ñuy màggal IAAF biñ ko sampee ak léegi ci loolu ñu ne compétition yi dina am ci fukki fan ak juróom-ñaar lay doon te itam dinañ ko amal ci fukki ñaar fukki gox ak benn ñu ci xaar téeméeri ndaw yoo xam ne ca gox yi ñu jógee wute nañu Moussa Diagne ak Abdou Boye dëkk-dëkkaan bi nga xamee ni moom moo di salde nekk nag ci département bu Podor mën na ni nag moom moo ubbi lii di cérémonie officielle ci lancement wu euh, ci lancement wu tàggat yaram bi nga xamee ni moom la ñu tuddee Kids Athlétique mu doon nag bés boo xam ni nag dafa tombek tamit ñu ci doon nag màggal li nga xamee ni rek moom moo di téeméeri at yu fédération internationale bu athlétisme mu toll woon nag mën na ni ci ay téeméeri xale yoo xam ne ñu ko jógee ci dëkk-dëkkaan yi nga xamee ni ñoo wër ndomb Saldé ñoom ñëpp ñëwoon nag ku ci nekk wane wane sa xarañ ci li nga xamee ni rek moom moo di discipline bi ñu tuddee kids athlétique waaw ah. ah. ci programme bi nga xamee ni dafa war a wéy nag mu war a toll ci téeméeri fan tax na nag lu tollook ñaar fukk ak benn ci ay site d'animation ak lu tollook fukk ak juróom-ñaar ci ay yeneeni compétition yoo xam ni daan ko amal fépp ci Sénégal mu doon nag sport boo xam ni mën na ni xale yi daan ci wane seen bopp bu baax. li ma nekk salde rek moo tax mën naa wax ni salde bokk na ci dëkk yi nga xamante ni ñi ko gën a si la bokk parce que ñun gëj nañ ci depuis 2008. tey jii bi ñu fi dellu siwaatee ni ñu gisee encadreur yi fi nekk di defee kits bi gis xale yi di ko defee wane na ni ñii arrêté wuñu di ko def te mokkal bi feeñ na tey jii. final kids athlétique nga xamee ni nag moom ñu ngi ko war a amalee fi nga xamee ni moom moo di ci gore lu tolloog nag téeméeri xale yi nga xamee ni ñoom ñoo qualifié ñoom nag daan leen yóbbu foofu ngir rek ku ci nekk wane sa wàllu xarañ ci li nga xamee ni rek moom moo di kids athlétique.